engagement cette disponibilité pour la cause de l'islam fay ñu Mata muhammadun loolu la wax sallallahu alayhi wa sallam ñëpp tiit ñi gëmoon ñoom yalla yàlla wàcce ben wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi ar rusul yonent yàlla muhammad sama jaam la man may borom guerre may borom xare may borom nit ñi borom muhammad su ni da ni demna. seen seen seen seen armée bi nar a tasaaroo defet puissante wàccu ci seen kaw ndax ndax guerre psychologie la tout d'abord waaw ngeen bëgg tax ngeen bëgg a ni nit ñi li nga xam ni mooy seen ngëm ndax su ngeen ne wëriñ won Muhammad gannaaw wala won keneen gannaaw dana xëy na dana ko lor waaye man yàlla ku ni wëriñ won ma gannaaw est-ce que dana ma lor afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum kon nak neena na demuk yonent yàlla muhammad taxul terewul diina ji nek fi mam alaaji malik anam radiallahu anhu ana sidi ahmed si ana cheikh seydi aboubacar si ana cheikh alhaaji mansour mi nga xamni le 25 mars le 29 mars 1957 4 jours sen digante ana alhaaji abdul aziz donte le def na fi ñen fukki yàlla yobu nako lu jitu muy dem bàyyi alhaaji habib dem na serigne moustapha wuy ji boroomam sëriñ mansour nek na fi ay at dem sëriñ abdul sëriñ cheikh tidiane kazalik sëriñ abdul aziz al amin mu baax ma lisaanul xadrati dem ñu ni deet waaye bu yàggul sëñ Pape Malick dem ak yeneen kilifa yi diine ci biir Sénégal waaye diine di diine lislaam di lislaam yàlla di yàlla te du fi jóge loolu nag yan la ci kaw loosu sëriñ Babacar Mansour moo tax muy interpeller ñëpp seen conscience ak seen intelligence ak seen force financière matérielle psychologique sociologique seen force yépp pour ngeen xam ni lii léeg la ndono la du fi jóge ba mukk fekk yàlla jóge fi du fi jóge te yàlla du fi jóge inna allaha xayyun looloo tax nag mu nekk liggéey bi ñor ko mu ni jàkk ji dañ ci taxaw jàkk ji nag du rek jàkk julli kese allahu akbar salaamaaleykum kër la goo xam ni day tabax nit daara ji dekkiwaat jàkk ji dekkiwaat na na daara ji doon jolle ci jamono maam alxaaji malik nga xam ni ak sëñ Babacar si nga xam ne ñoom góor gi Cheybatu Fall a ngi fi woon góor gi sëñ Alioune Gueye a ngi fi woon góor gi euh, euh, euh, góor gi a ngi fi woon sëñ Birahim Diop a ngi fi woon sëñ Babacar loolu la bëgg daara ji mel moo tax jamaatu Nour al sunniya na leen vous avez du pain sur la planche ñun ñëpp nag ñu ànd ceeg yéen loolu la bëgg ñu xam ko ci bés bi xam ni relance moo am renaissance moo am mm-hmm. Mm-hmm. revivification moo am mm-hmm. waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon inna allaha yab'asu ala ra'si kulli qarnin man yujaddidu diinahu aw amra diinihi nee na nee na cent ans yu nekk siècle bu nekk yàlla dana yebal koo xam ni day ñëw dëkkalaat li nga xam ni dafa xawoon yonjax ci diina ji xawoon néew doole ci diina ji loolu ñooñu di ko di ko yeesal yal na ci yàlla boole sëñ Babacar Mansour mi ndax bi bàyyam maamam demeeg léegi mi ngi toll ci cent ans daanaka 1922 te ñu ngi ci 2020 kon dafa mel ni dafa ñëw pour revivifier lo xamni def ci wutu mam Cheikh Alxaaji Malik ak bayam yu bax yi ak magam yu bax yi ànd ci ak rakam ju bax ji di serigne Maodo rakam ju bax ji di serigne Babacar Abdoul Aziz ak ñun njabot gi andi wat li nga xamni mom la yàlla wax ci suratul jumaa huwa alladhi ba'atha fil l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma xam-xam bi ci la la science et la connaissance doit être dans le cœur et au cœur Euh, de, la religion islamique et de toutes les religions d'ailleurs du monde céleste même si nous euh, matériel la matière matérialiste xam-xam molendi molendi di di sen wi nuru samawati wal ard masalu nurihi nous fiha misbah al misbahu fi zujajatu يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور العلم ونور الحكمة ونور المعرفة ونور اليقين يهدي الله لنوره من يشاء كنا نبدي أنتريني وكلول وسخيون وإن شاء الله يالا دينا ما يلير كون سين جماعة بي يالنا كي لير سخكم نيلين كسين بابكر ووي سين بابكر نك لولو لني ون كون نيو خمني يفي سجي ماجي دمون بمل نجمع بطخاويتم ñi mu bëgg a def jamono dëgg-dëgg mooy jullit ñu fay jullee di fa jànge di fa soowe di fa yendu di fa fanaan góor ñaak jigéen ñi ñépp nekk xiyaarun min xiyaarin min xiyaar kon nag loolu mooy di xam ni moom lañ doon waxal sëñ Babacar Mansour dafa bëgg daal ñun ñëpp ñu àndandoo moom jógandoo topp ci gannaawam te inam yàlla nee na yaayu la dina amoon atiu allah wa atiu atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum defe naan noonu la waaw te yàlla moo ni sa njiit sa kilifa yàlla nee na bëggul indiscipline bëggul anarchie bëggul distraction ci œuvre bu reuy bu melni l'iman ak l'islam ak l'ihsan ak l'ikhlas il faut ñu am ci njit motax suratu al-hujurat wàcc يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أي مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كون سيغ بابكر لولو لا نيوارا خامتي موم خامني إن شاء الله دا فا نيو بور لي في ماغني باي وون ييب مو تاكات كو ييب نيك بن با تيوا وون دانيو خامون دانتان كونتيني دي صاح با دوغ تي ادونا بي يالنا نتي يالا ديمبالي تي خامنا ني باس باس باغي في element yu baax a ngi fi acteur yu baax baax a ngi fi waaye nañu fexe ba benn distract dara duñu distraire loolu rek lañ doon ñaan di jataay bii mook sëriñ Maodo ak sëriñ Babacar Abdou ñoo ko waroon bokk waaye yéen njaboot gi fu ngeen toog ñoom ñëpp a nga fa ku ci nekk rek xoole na la jëmm boppam te wax na ko léegi ku ci nekk sëriñ la la jàppe ngir yàlla ak jëmu Cheikh Alxaaji Malick ak maam yu baax yi àndoon ak moom nga xam ne ñoo def ñoo ñoo samp samp bi démb lu jiitu tey di dikk te nee na waroon na fi euh, am ngeen mbokk yu fi waroon ñëw muy sëriñ Chamsuddin Ndoy bu bàjjen umu xayri si na fi teew mu di sëriñ Abdul Aziz Touré bu bàjjen Ayda Si Malick di doomu euh, sama baay Cheikh Mouhamadul Hadi Touré Chamsuddin di bu doomu baay Alxaaji Amadou Assane Ndoye yaayam di doomu Cheikh Alxaaji Malick sëñ Moustapha Si ñu naan ko góora di doomu maam Mor Xujj si ak soxna na fi setu si ñu ca Mirkilaan waroon na fi teew seen mbokk tam Papa Sarr di doomu soxna Roqaya dafa nekk ca France ca tugal ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp ci njaboot gi la ñu bokk waaye ñooñu sax seen wéradee tax mu ni leen mën ngeen toog rek ñun ñëpp ñu wutu leen jigéen ñi sax muy soxna Safeetu si bu sëñ Babacar soxna Aminta si bu sëñ Babacar soxna Daba si bu sëñ Babacar nga jóge ca tabaarakallaahu ñëw ci néegu Baay Alaaji Abdu ku mel ne soxna Umul Xayri si ma fay taaw ak soxna Ayda si ñoom ñëpp ak seeni rakk waroon nañ fi teew soxna Safeetu si Habib waroon na fi teew waaye ñoom ñëpp tam liggéey bi ngeen nekk fii ci barab bi pour taxawala taxawalaat ko ci kanamu ci ci ndigalu sëñ bi moo leen tëye ca kër ga ñoom tam ñuy def liggéey bu mel noonu bu mel nii foofu yal na yàlla euh, jàppale sëñ Babacar ci yéene ji mu am ak jamaatu nuur ak ñun ñi njaboot bi guddal fanu sëñ Babacar ba liggéey bi nga xam ne mi ngi koy sémb ngeen taxaw ci wetam ruhamaa u baynahum ji yàlla waxoon ci muhammadu rasulullah walladina maahu lamb leen nekk mbub moo xam ni